àddina asalaamaaleykum Gambia nuyu naa képp kuy seetaan Sahel Network TV Aïcha leen teewalaat si biir kër gi seen programme looy yëngu maanaam business profile ma am gan bu tedd macha bu xariñ si lu muy def dama koy bàyyi rek moom mu nuyoo wax ñu moom mooy kan asalaamaaleykum. waaleykum Network maa ngi bu baax a baax baax Serigne ma dalal. macha allah Babou sa nuyu te fay neen la bu baax a baax léegi dañ lay laaj kan mooy Baboucar. ah kar am ah, nekk doomi Santhiaba juddoo fa màggee fa di Dóor waar ñëwkat bu xarañ ci lu muy def. mu ko bu baax a baax. Mhm. macha allah. loolu nekk na lu am solo waa Babou nga ne ci ñaw nga yëngu depuis kañ nga commencé di def ñaw. ñaw right now nii fu ma waxaa nii de am naa si macha allah ah, ngoog léegi yow depuis euh, comme lan moo tax nga choose ñëw as sa métier pour nga koy liggéey. waaw because xam nga soo namee sanse bugg ko te mun ko. il faut nga def la tax a mhm. man dama nama sanse. Mhm. mais ba dama ko xamoo. moo tax il faut que ma def ñëw pour mun a sanseloo suma boppa mhm. sansel keneen ku mel ni man mhm. ku bëgg a sansel loolu nekk na lu am solo feeñ na si yow sa gisoo tey fi ah, nga génn sa sa sa girin baax na allah <laughs> ah, léegi baabu euh, naka nga nekk di dundee si def fashion design fii si biir Gambia waa fashion design bi fii xal na dem xal na ñàkk a dem because of Gambians bi dafa nekk li nga xamante ne ñun des nañoo gëm suñu boppam. you know because tey am su xoolee foreigners bi leen gën a jox cër bi den ni ki ku nekk si réew mi. so moo tax duñ dem foreigners bi ñëw na fi boobu lu mu fi am yëpp duñ am dem yóbbu. so daal di wax comme boppi doomi Gambia mm-hmm. na jàppale doomi réew mi ba pare na gëm. boppam tamit. Mhm. si génn incha loolu dëgg la parce que Gambien mi dafay gis ne mbokki Gambien ma ngay ñëw fii sax mu ne déedéet bàyyi ma yóbbu si Sénégalais bi nii. mu ñëwal ma te loolu soo ko seetee sax xaalis bi kooku su paree daf koy yóbbu réewam. waaw soo ko bàyyoon si Gambien bi moom tax bu muy fay leneen ak leneen lu muy fay yëpp si biir réew mi la moo ñëw. ko loolu nekk na lu am solo. léegi Babou yow what are your biggest challenges euh, so far depuis boo duggee si wàllum ñaw bi. am yee stade bi métti woon na waaye fu mu nekk alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax ñu see gis suñu bopp daal. Mm-hmm. bu baax a baax a baax sax. Limba mun nga ñëw wax tuuti si sa jaar-jaar yi comme que nga ne commencement bi métti woon na nga wax ñu tuuti si sa jaar-jaar yi ñëw. waaw métti woon na you know uh, tey jàng métier dafa ne. Mhm. ñun suñ time you know loo xamante ni tamit mooy loolu. Mhm. tey suñu defatoon noonu. I think ne duñ egsi fii. Mhm. di gërëm suma boss bu baax a baax. because tey si defatoon noonu ci man tey du ma toll fii. tey maa ngi kontaan bu moom si moom di ko nuyu. bu baax a baax. moo tax moo tax ñu ne muñ rek a am solo loolu muñ rek mu jeex ku muñ muñ mu ngoog léegi Babou yow da nga am ñi nga xamante ne ñoo nekk si sa ron ñoo xam ne yaa ngi leen di jàngal si wàllum li nga xam ne loolu ngay liggéey di fashion design Ah, bëri na am bëri na am na ñu ma jàngal am na ñu ma jot a ber. Mhm. tamit utal leen certificat pour. Mhm. fu ñu mën a dem si àdduna bi. Mhm. ñu gis seen boppa because samba ah, tubaab dafa gëm paper. te ñu ñi ñëpp am nañ suñu paper tey ku ñëw ku nekk jàngis ñëw si shop bi. ko see gis suma paper si di nga xam ne kii mën na lu may def. doo ma laajte sax soo riitee yow xamal nga sa boppa tey xale yu ma amee tamit di leen jàngal pour ñu nekk ëllëg. Ah, designer you know ñu ngi góorgóorlu bu baax. sant yàlla moom waaw mu ngoog man mi sa gis naa ko barki di Mbow Ndiaye nga jël benn certificat jox ko benn si sa apprenti yi moom nga xam ne ber nga koy kooku di madi macha allah gisuloo moom si apprenti yi sax moom a génnee fu ma nekk nii tey loolu nekk na lu am solo parce que ëllëg su génnee sax dafay xam ne comme fay nga ko fay nga naar bi xorom doo xëy waaw parce que euh, liggéey na ko fa ba nga war a jox ko certificat moom tam su demee ba ubbi feneen dina mun a dina mun a wane kayitam yooyu ne moom tamit euh, ñaxam moo ko jox loolu ñaw bi ba légui euh yow da ngay ñawal goor ak jigen wala jigen ñi rek nga fétal wala goor ñi rek nga fétal non man mom comme ñepp la ni ka di ñawal mm. dama ñawal goor ba contane kontaan ñawal jigen ba contane mm-hmm. fo ma pousse ma dem ñari mm-hmm. bo rebla laa moom masha allah loolu moom moom feeñ la moom tarap sax léegi yow goor ak jigen ban moo la si gën stress fo ci ñaw yi jigéen la. man <laughs> kay xam naa ne jigéen ñoom parce que defante moom. non góor amul problème. Ah. góor dafa ñëw rek nee na jox la pisam ne la segalu rafet nga ñëwal ma. Mm-hmm. te bu solee rek dama yoonam. Mm-hmm, mm-hmm. waaye jigéen jàppal fii waxuma la lii nii ak nii xëccoo bi you know daf day bari daal waaye ñun yàlla may nañu péché ba nga xamante ni dañ la mën a bégloo bee. doo mere. soo meree sax dañ la mën a diifal am nga si dara. moom man moom damay ñëw sax mu ngay waxtaan loolu na sax dama war a ñibbi kon loolu nekk na lu am solo baabu euh, jigéen ñi nag léegi ngeen fu mu ñokkati ñu ngi complain na ñun ñoo nekk problème bi suñ demee ma ne waxuma la woon nga ñaw lii loolu yëpp dañ ko war a wàññi nag ñoom kat soo bëggee mu kontaan danga koy joxoro ne ko ñawal ma dafa lay ñawal yoo nga xamante ne sax dafay sedd sa xol loolu nekk na lu am solo léegi baabu naka nga nekk di dundee ak coronavirus bi nii ak <laughs> business bi métti na trop sax métti na trop euh, suñ côté euh, rawatina weer bi ñu toll. Mhm. you know te ñëw ko xam-xam ne ne weer bi la moo récupéré alal. waaw te weer bi ñu bëgg la ko xañ. Mhm. dafa métti trop. Mhm. you know ñi ngeen ñaan gars yi daal ñoo xam ne ñu nekk ci boppa bi. ñu mun a may weer bi. ñu récupéré ñun tamit luñ mun a dundalee suñu njaboot. ak i famille bi. you ñu mun ko récupéré si weer bi. waaye suñu bëgg a code si weer bi ni jox ñu short time luñ bëgg a duñ ko mën a am. loolu métti leen si trop. légui comme que yeen comme noko waxe wer bi ngeen di na am li ngeen soxla comme mm. yeen commencement wer koor ñokati mm. eh, dañ dañ comme eh, nit ñi dañ di andi seen ñaw yi ne eh, balama ma bokk ci rangé bala julli bi di ñew way comme lool yeen nekk na lo xamne dafa ciñ ci ren parce que coronavirus mo motax waye naka ngeen nekk di dundé loolu tamit ndax kiriyaan ngi ñew wala nu fa démé wa sante yalla bam bari ni mom chaque jour ñi ngi sante yalla mhm. because tey liggéey soo ko munee si la si yàlla may xam-xam ak daraja. you mm-hmm. know da nga koo sant. Mm-hmm. ñun moom événement pas événement tamit mm-hmm. yàlla mu ñuy may xéwal. tuuti ñu ngi koo sant yàlla bu baax a baax. waaye corona bi tamit um, ñu ngi ñaan yàlla daal yal na fi génn. waaye sonal nañu benn côté tuuti nag. waa ci wàllu bagage. waa ci wàllu ñaw moom. sant yàlla ba mu bari waaye wàllu fu ñuy utee bagage. foofu la ñu ngoog léegi yow Babou what euh, who biggest customers maanaam ñan ñu xare ñoo la di gën a teewal foofu na ne la man di saw rek a may ñawal. bari naa. ñu si mel nii. ak tànn na jox naa ko waa Jaa Oil am na solo kon ñooñu ñooñu Jaa Oil kon Jaa Oil jaajëfal leen bu baax a baax comme que Babou nee na moo leen di xottil waa Babou man lu ma bëgg a ñëw mooy la moo waral sa ñaari tur yi Xale Sizo ak Master Creation. wax dëgg la kontaan na si trop si laajte bi ma laajte mhm. noonu dama nekk ndaw bi nga xamante ni yàlla teel na ma amee si so mhm. su ma loxo yi soo xoolee baaraam yi bu ma ko yàq sant yàlla bu baax a baax mhm. teel so teel a dog toog benn place nekk xale bu tuuti si suma boos am yenn foore si ñëw fekk ma maa ngi ñëw you kenn ki jigéen la gambien la mu ne ma xee xoolal xale bi ak si so bi si la ma suma boos ne kii mooy Halle Sisoh. ma siif ko. waaw nga bind ko ko si galerie bi number two um, master creation tamit the thing dama um, mm-hmm. um, boobu noonu ñu mm-hmm. mm-hmm. yi nga dégg fi yëpp caar nekk ba léegi relax nañ. because designer dafa nekk li nga xamante dafa métti. te xaalis bi des naa mel noonu. so ñu ngi jaajëfal ñëpp ñu fa nekk daal mhm. yal nañ si gis seen bopp ngoog léegi yow baabu yow sa sañse fan la ko mën a nit nit mën a sol dem fa bëri na dama sañse la kuy dem juma mooy fos imaam yi ustaas yi suñ mhm. si paree ngénte beeg ceeb bi suñ si paree gala dina beeg dance bi foo ma foma ma oo ma yu la fa ah waaw yow kay moom kon war nga sa xare xarañte master creation masha allah <laughs> wa baabu yo. amoo jabar. amaaguma waaye maa ngi ut. <laughs> waaw nga xaar. Ah. léegi lan ngay mën a wax ñi seetaan kañ la kañ la loolu di am. ku baax rek su ma ko ah. gisee moom tey tey mën a tax. kon bu baax. non non ah. baax na man rek sama dinaa la utal wax dara. <laughs> loolu ñu boole léegi baabu euh, lan lan mooy comme naka la wax sa lan nga mën a advice euh, youth si nga xamante ne dañ bëgg a engage on façon design. waaye yut si euh, ñu ne jàppa taxa bay mu la taxa yegg fi nga jëm mhm. tey man bu ma doon raam di jog you know am naa ñoo xamante ni lii ñii kii du dem kii du mhm. tollu fii te suma famille la ñoo nekka mhm. ñu ñu mandika you know kii du dem kii léegi tey mu mu mu dama mhm. kii dafa léegi tey ñu demee ko léegi tey mu nangam mënut mhm. lu muy def mhm. waaye yàlla jàppale ma jàppale bu nga xamante ni ñoom seen boppa doon neen ñëw di ma support yaanatan comme nit ku nekk muy yuut si muy ku munti doon li nga jàppa téye ko bambaar bés dina ñëw din si dégga din si dégga sa tur si dégga bi din si tedd maa ngi ñaan yàlla daal képp ku nekk di yëngu muy foo ti yëngu si àdduna bi mooy weldemaan beeg musicien beeg nu mun a doon jàppa bis dina ñëw. Mhm. di nga gis sa boppam incha allah. léegi Babou laata ñuy tàggatoo what are your final words lan nga xamante ne loolu ngay bàyyee ñuy seetaan balaa ma lay wax ma lu ngay faral di teg ci table bi chaque jour. waaw li ma seetaan ma leen di rafetlu bu baax a baax baax si mhm. seetaan bi ma seetaan nii mhm. di jaajëfal uh, mbooloo mi di jaajëfal waa kër gi di jaajëfal suma customers yi rawatina waa Gueye Sow Creation bu ma bàyyi fële di jaji fal nene ngay sow mhm. suma mak mhm. la eh, mm. mhm. eh, bi nga xamanteni dal ken dem mu dess ma ko jaajëfal bu baax baax mom mooy magi keer gi macha allah nee ne kon ñu lay jaji fal bu baax baax baabu dama la bëgg laaj comme lan nga xamantene rek sa xol duy neex da ngay mer wa man comme suma retour aduna mom gisuma ko yeah because bepp fatna bi nga xamanteni nit mu ci xanaa li ma nekk di xalaat right now lan moo tax taxuma jabar hmm. hmm. waaye du question jàng du jàng du jàng métier du ah. xam àdduna du topp hmm. àdduna macha allah loolu rek laa nekk di xalaat loolu su ma ko xalaatee rek du ma mer waaye dina ma yokk ci xool dafay ceeñ sa mood waaw gis nga weeri koor bi kon ndogu yooyu <laughs> su doon baax lu may wax si géyee nii lekk rek la ñuy def <laughs> mu ko képp ko am la na xare war ngay mën a am tamit du la neex léegi yow lan moo la neex soo faa euh, si sa dund loo xam ne soo ko xalaatee rek da ngay muñ nag dëree rek waaw mooy euh, at buñ ma joxee suma suma certificat bi ne ma léegi mënal nga sa bopp mën ngaa demal sa bopp ndeysaan ma ñibbi kër bi wan ko suma yaay suma mm-hmm. famille mm-hmm. daddee boobu noonu am kontaante bu mag laa am um, because atelier bu nekk yaa ma doon kool bu ko jëflante man maa man maa doon choisir fu ma neex madame Ndiobal madame Ndiobal di teg ci taabal bi mooy képp kuy dem daf may mu wëyal ma wala mu mu jox ma cax léegi boo ci tànn ci ñett yooyu léegi wala cax wala woy woy ak yàlla def ma woy nag mënuñ ko léegi tamit you know dama daan dégg suma maam di wax ne amoon na benn uh, taalibe mhm. ñoom ñaar dañ doon play uh, kasu mhm. so ñu win pot ba mu fees mhm. so beneen taalibe bi ne nañ ko dam séedoo si bàmmeel bi beneen taalibe bi ne ko non buñ ko séedoo si bàmmeel nañ ko séedoo si kër bi kooku ne noonu nañ dem si bàmmeel bi soo bu doon gars yi di dugg si bàmmeel bi nag. mu ne ko nañ tëj pour bu ñu kenn gis. Mhm. nañ rotal ñaari xoox si buntam. Mhm. soo fa gars rotalee ñaari xoox dugga. kii mhm. kii nekk naan maa jël bii kële na maa jël bii. léegi benn waaye doon romb rek dégg maa jël bii mu ne ko imam malaaka yaa ngi si ko imaam la imaam bi ñëw dégg si si bàmmeel bi maajel bi maajel mu ne ko am na ñaari yu bunt bi <laughs> ne ko waaye imaam bi ñoo fa nekk imam ba daw. maanaam imam bi moom moo ne ñoom lañ jël si moom kon léegi nag dañuy tàggatoo suma yaay. because ñu ne ndey dafa force doom su ko nàmpal dafa xool. bu ndey am lay doom di ji. jël naa suma jikko yaay. suma yaay nekk jigéen bu baax aji faama jóg. maa ngi nuyu bu baax a ak. Wujaan di Ndeye Diaw. Mhm. ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu. macha allah Ndeye mooy suma yaay na femme suma yaay. Mhm. maa ngi nuyu ñoom ñëpp baax a baax. <laughs> loolu moo waral kon Guèye bi da nga jël sant yaay bi boole ko si sa sant bi mu nekk Guèye Sow Creation. bi nee moo ko andi. moom ah, moo ko andi en moom uh-huh. Guèye Sow ko dee ooyee. Mm. nee mu ngoog mhm. ku nekk gis si boppam. waaw man mi sax gis naa si sama bopp parce que soween laa macha allah <laughs> mu ngoog kon nag di jaajëfal ñi nga xamante ne ñoo doon seetaan Sahel Network TV Aïcha leen teewalaatoon si biir kër bi seen programme yi lay yëngu di leen joxaat di daje ba beneen édition of the show bye